asalaamaaleykum mbokk yi xam ngeen ni garab dafa làqu te nag ba ca gën bokk na si ba nga xamante ni ma nga bàyyeekoo sa gàncax suñuy maam moom lañu yàgg di fajo di si am taw feex ah mbokk yi dama ni su ngeen bëggatee nag tàggoo ak lépp loo xamante ni mooy jàngoro dama ni ak si ngeen lii di garab yi nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo suñu gàncaxu maam yi nga xamante ni dafa gën am ay ngëneel yu baax dama ni bu fekkente ni méttitu bopp moo leen sonal di sinusite wala ay migraine ngeen di toog di niir xam ngeen ni ñëw leen seet si suñu garab bii di nevedaay moo aay nag ci yile jàngoro bët yuy metti fu nekk nga jooy ko fu amoo fa safara bu dee da ngay saqat saqat yu metti yóbbu la sax ba tuberculose nga am asma boo xamante ni fu nekk dem nga fa mënoo ko faj dama ni mbokk boo essayé sunu produit bii di nevedaay xam nga ni moo gën moo wóor te nag temps bu gaaw a gaaw la koy éradiquer ba mu set wecc bu dee da am ay palpitation sa xol di metti nga sonn loolu mbokk ak si nga booy am biir bu yàgg di metti am ay sànn waaye nag hémorroïde jàngoro jamono ji nga xamante ni moo lëmbee askan wi bu dugg ba wala bu génn ba bu mu si man a doon da koy génne ba mu set la ci bu fekkente ni da ngay lekk muy metti maanaam colopathie ulcère ak ba si serre yi wala estomac ak sima man yi garab bii day wàññi lépp loo xamante ni mooy cholestérol ak graisse da ngay feex am bien-être boo koy utiliser moo lay aar ndaxte lépp luy matière grasse wala lipide da koy éliminer bu dee nag faiblesse sexuelle maanaam nga tële ci biir kër gi nekk ci yoon tële mënatoo lu bari sax nag nga dem bay jeexal wala sax ngay gaaw ak àgg bu fekkente ni da bëgg sa mën yu gën a baax mbokku jàppal ji ak siga nga doon jigéen bëgg ubbeeku bu amee problème prostate wala sax nag nga bëgg saw muy metti ay kis ak fibrom yoo muy jigéen da koy génne mu set Orange moom lam ca mën kenn mënu ko cëw des règles douloureuses également ak sindeen ngeen amee tension ngeen bëgg mu réguler ngeen am diabète ak lépp lu mu si mën a doon sa yax di métteeg say digg ginnaaw say neex ak sedd bi li di gudd ak rhumatisme ak nerf sciatique tamani mbokk boo jëfandikoo garab yi xam nga ni da ngay am tawfeex ba faaw wóoteel gaaw laaj ci Serigne Fallou lu adresse mi ngi Touba 77 507 46 52 77 507 46 52 jàppal ni lépp a yemb ak garab yi nga xamante mbokk moo gën moo wóor moo wér yàgg di indi ay jeexintal yu baax seen wér gu yaram